ndax yàlla sama taala jëriñ ñu ci kon ñu moytu ko moy ko nopp ay bismillah fadal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala sunu jotaay bi yal na ko yàlla barkeel te nangu ko léegi léegi Cheikh Maguette mu ngi doon def benn tomb bu am importance boo xam ne moog bi dañoo xaw a lënkaloo yal na ko yàlla fay mu ngi doon wax ci njëlbeenu waxtaan wi muy sàkku ci bokk yi ñuy teewalaat yéene yi di ko beesalaat loolu lan moo tax chaque jour boroom xam-xam yi bu ñu bindee téere lu ëpp dañuy jël xadis innamal amal binniyaat def ko ci bopp téere yi looral loolu mooy genn wàllu boroom xam-xam yëpp dañoo ànd ne moom mooy genn wàllu diine su su yéene baaxee rek jëf day baax su yéene bonee jëf day bon loolu moo tax chaque jour ñuy sàkku ci mbokk yi fu nekk benn ñu bàyyi xel fu nekk comme fii jàkka la kon waruñu fi kaf waruñu fi kaf kon maa ngi koy bàyyiloo xel mbokk yi war nañu chaque jour fu ñu toog rek ñu jéem a teewal jawwul imaan parce que cheikh yi ci loolu lañ ñuy soññ ñu ngi jël juróomi aay ci suratul xujaraat bopp saar bi wala saar juróomi aay yooyu bu ñu leen doon utal mawdu dañuy wax al adab ma allahi wa rasul teggin yu nit waraam jëm ci boroomam ak yonentam lool dañ ciy gisaat ne teggin wu nu waraam mu jëm ci sunu borom ci sunu néegu borom lan nekk tey am na néeg yoo xamante ne am na kër yoo xamante ne wala néeg yoo xam ne wala saal yoo xam ne boo fa doon dugg dañ naan la simmil sa mbax na boo fa toogee doo tàllal tànk boo fa toogee doo toogee nu la neex te ci ay nit ay jaam ñoom nga toog am na saal yoo xam ne wala néeg yoo xam ne boo fa doon dugg tey sa portable du sonné procureur de la république bu toogee wala juge bu toogee ci kaw podium bi di juge salle bi kenn du fa dugal portable wala ku fa dugal portable da nga koy fay ku sa portable sonné da ngay fay 3000 francs te di nga ko perte 3 jours bu ko procureur jëlee bu portable bi sonné policier bi mooy ñëw ba ci yow ne la indi portable bi nga joxe ko mu fay ko def ko ci poosam yow mu des yow nag léegi kañ ngay jotaat sa portable te bala nga koy jot di nga fay te néegu loolu loolu tribunal kese la loolu tax ñuy bàyyi xel di teewal suñu yéene fu nekk di bàyyi xel fan la nekk kon teggin yoo xamante ne dañ koy am suñu digganteeg suñu borom moom la suuratul xujaraat di jàngale juróomi aaya yu njëkk yi waaye teggin bu ñuy am jëmale ko ci suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróomi aaya yi loolu lañ ciy jàng waaye dinañ ci jëlee ñoom juróomi aaya yi ñetti mbir yum ñuy jàngal mooy ma turshidu ilayhi l ayat aaya yi loolu la ñuy orienté juróomi aaya yooyu tomb bu njëkk balaa ñuy jël tafsir maana kalimaat yi mooy wujubu taa attaama lillahi war gi nga xam ne nekk na warugar sunu kaw ci topp yàlla topp gu mat sëkk nga xam ngeen jël benn aay lan la wax yàlla def nu woo te bim nuy woo yan la baat la nu wootee baatu yéen ñi gëm tey ñun ñi ñëpp lu tax ñu bàyyi sunu kër yi dajaloo ci néegu yàlla bi mooy danu ne ñun danoo gëm kon ñun ñooñu ñun ñu gëm ñooñu wuyu si yàlla yàlla woo ñu ci baatu iman nañu yaa ayyuha alladina amanu kon li nu war mooy ñu topp yàlla topp gu mat sëkk ak tàmm ñaareel wa taqayyudi bi kitaabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bu nu toppee yàlla ba pare lu nu war mooy ñu tënku ñu tënku mooy ñu yeewu sunu bopp ci yoonu yàlla ci téere yàlla bi ak ci sunna yonente alayhi salaatu wasalaam kon aaya yaa ngi aaya baa ngi woo ci ñu topp yàlla waaye topp yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne du dagan mukk fala yaxilu li muslimin ida qada allahu wa rasulahu amr du dagan ci jullit bu yàllaa ku bi yonent waxatee dara ne lii la ñoom ñuy jiital lenn ci waxi yàlla wala lenn ci wa ñu jiital ci waxu yàlla waxu kenn wala ñu jiital ci àtte yàlla àtte kenn wala ñu jiital benn gis-gis gis-gisu doomu aadama ci waxu yàlla tabaraka wa taala loolu du dagan ci ki ku ne man gëm naa yàlla ba pare loolu moo tax njëlbeenu aaya lan la wax yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm ñu ne ah mu ne laa tuqaddimu bu leen jiitu laa tasbiqu bi qawlin aw fi'lin fi amrin min shara'i'i diinikum amara bihi llahu wa rasul yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi ci wax wala jëf benn mbir ci mbiru diine ngeen war ko def di ci jiital seen bopp wala xalaatu nit wala àtte nit wala gis-gisu nit ngeen bàyyi li ci yàlla wax tey ñun waa Sénégal aaya bi buñ ko déggoon rek suñu problème yëpp rek la wu parce que li nu tere ba tey nekk ay jullit yu mat sëkk comme aaya bi nu mu ko waxe mooy di jiital waxu keneen ci waxu yàlla wala di jiital àtte keneen ci àtte yàlla wala am ay gis-gis yu ñu jiital ci sharia loo xamante ne dëppoowul ak ni mu war a demee te yàlla dana laa tuqaddimu bu leen jiitu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent est-ce que mos ngeen gis fas bu jiitu saret ah saret bu jiitu fas loolu mës nañ ko gis du dem chaque jour kon lan mooy yoon mooy fas bi mooy jiitu sareet bi doog a ñëw ndax fas bi mooy xëcc sareet bi ñun nag dañoo bëgg a nekk ay jullit jiitu yàlla jiitu yonent bi te torche bi yonent bi moo ko yor mooy nit yoon bi ñun dañoo war a nekk ci ginnaaw boo àndee ak borom torche foo war a nekk ci ginnaaw moom mu jiitu muy nit après nga dem kon yàlla mu ne ñu bu leen jiitu yàlla ak yeneen tam mu ne kon tomb bu njëkk bu ñuy jëlee ci aaya yi mooy du dagan ci jullit isa qada allah bu yàlla dogalee dara jàng nañ ci suratul ahzab yàlla mu ne maak ma kaana li muminin wala mumina isa qada allahu wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim warul jullit bu góor warul jullit bu jigéen yàlla ku yonent wax ba pare jullit boobu naan wéy mee man xam naa yàllaa ko wax waaye waaw benn benn jigéen dafa jóge Égypte semaine bi mu doon defi lënd meelam France mu ànd ak jëkkëram bi mu demee mu dégg nodd mu ne ah wala de julli la wala julli de jëkkër ji ne ko demal julli te ñëw mu ñëw dugg ci jàkka ji ubbi saakam génnee jilbaab bi faxas ko daal di teg ci bopp bi kàbbar julli ba pare am benn tubaab bu jigéen bu jógee ci sàpp jigéen ñi ñëw fekk ko comme pare na julli muy lemaat kaala gi di ko bëgg dugalaat ci saak bi ndaw si ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah mu ne ko est-ce que jullit nga mu ne ko waaw mu ne ko hal qulta laa ilaha illa allah yow hal qulti laa ilaha illa allah est-ce que wax nga laa ilaha illa allah yow mu ne ko ah kay wax naa ko mu ne ko boo ko waxoon kon kaala gi di dugaat ci biir saag bi ndaw si mu ne ko ah mu ne ko soo ko waxoon kaala gi du wàcc sa bopp bi di dugg ci biir saag bi ndaw si taxaw di xool mu ne ko kon beesalaat ko na dugg ci xol bi moom ndaw si moom ndaw si après ba ndaw si ñibbi bu mu ñibbee mën a jëkkër ji nan ñibbi fii du sama place mu daal di ñibbi Égypte delluwaat ci diineem fan la ko jëlee xoolal France xoolal fan la juddoo Égypte juróom-ñaari maamam jullit mu dem fekk koo xam dafa doog a tuub kooku ëpp ko imaan parce que jubluwaay bi la ak wax bi daka daan wax fee rek mais eggul woon ci xol bi amul woon ixlaas amul niya léegi na xoolal mu dem fee mu am istidaad bu bees loolu moo tax chaque jour ñuy sàkku ci mbokk yi ñuy bàyyi xel loolu parce que lu am importance la ci ci ci ci diine moo tax ñu ne du dagan ci jullit yàllaa ko yonent wax ba pare yow nga ñëw wala keneen ñëw nga ci nga ci am loo ci seppi kon du dagan bul jiital waxu yàlla waxu keneen ci kaw waxu yàlla qawlan aw xukman aw ra'yan li ahad bul tànn waxu kenn bul tànn àtte kenn bul tànn gis-gisu kenn ci kaw waxu yàlla ak waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kaayinan man kaana ku mu mën a doon nag ku mu mën a doon fa lizalika looloo tax mu ne saanu ahlu taqwa wal iman nee na nee na loolu mooy mbiru ñu gëm moo tax yàlla bi muy woote dana yaa ayuha alladina amanu yéen ñi gëm bu leen jiitu laa tuqaddimu bu leen jiitu bu leen jiital ci wax ak jëf ci benn mbir ci sharia ci mbiru diine ngeen ci jiital keneen wala leneen ci kaw yàlla ak yonent gis ngeen lu mu ci teg yàlla dañuy mettre en garde mu ne wattaqullaha na ngeen moytu yàlla comme waru leen ko jiitu mu ne na ngeen ko moytandiku gis ngeen lu mu ci tegaat baat bi moo jiitu ci aaya bi ba mu koy tëj loolu la ko tëjee wattaqullaha moytu leen yàlla ndax inna allaha samiun alim yàllaa ngi dégg yàlla aji xam-xam la aji xam la sami mu ngi leen di dégg lépp amul lum déggul alim bi axbaarikum xabaar yépp la xam yàlla amul lu ko ëmb laa yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama amul lu nëbbu ci moom moom lépp la xam moo tax olof bi ñu koy tuddee ñu ne ko ku deñ kumpa ñu ne moom mooy yàlla bu ñuy wër ku dañ kumba kenn kooku la mooy yàlla subhanahu wa taala lépp la xam comme moom daf ñuy dégg sayid xawa rahimahullah day wax ne bu ngeen di jàng alxuraan da ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee bu la yàlla ne inna allaha samiun alim man yàlla damay dégg di gis di xam yow loo ci war a def kon kon lépp looy wax jàppal na yàlla dégg na ko de tey kenn di ci ñun fii rek soo fi toogee fii ba ba nga fiy jóge lépp looy wax da nga koy def da nga koy def teg mu jaar yoon doo fi jéem a wax mu safaan lu tax parce que doo bëgg sa nawle yi mbokk yi nekk fii dégg yow da ngaa wax safaan kon sunu borom nag subhanahu wa taala mu ne yaa ayuha alladina amanu yéen ñi gëm laa tarfaawu bu leen yëkkati aswaatakum seeni baat fawqa sawti nabi ci kaw kàddu yonent bi boroom xam-xam yi nee nañ loolu dafa am sababu nuzul imaamu Buxaari nettali na ko nee na ci diggante Omar ak Abu Bakrin pour wal leen ne nit ñi nit rek lañ doomu aadama doomu aadama la rek donte ne yonante nga sax doomu aadama qul innama ana basarun mislukum lan mooy différence yuha ilayya hatta saxaaba yi bu fekkee ñoom ñoo mel noonu nekk yenn saa yi doomu aadama di feeñ ci ñoom benn caravane ñëw Omar ne Aboubacar ne diw moo leen jiite Aboubacar ne ko di Aboubacar ne diw moo jiite Omar ne déedéet diw la Aboubacar ne ko yow yow nekkoo fi rek lu ma wax tu xaalifu nii lu ma wax rek nga contre ma yow wax ji jëm kaw ñoom ñaar aaya bi daal di wàcc la tarfawu aswaatakum fawqa sawti nabi yeneen baa ngi ngeen di xuloo ngeen di wax ci kaw loolu mooy sababu nuzul aaya bi ñu ne kon lu ci war ñaareel tomb lu ñuy jëlee ci aaya boobu mooy wujubul adab maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañoo war a am teggin ci yo yonent bi dañoo war a am teggin nan la ñu amee teggin ci yonent bi bu ngeen demee Pakistan am na fa école yoo xamante ne bu ñuy bu ñuy jàngalee ay teggin ci yonent bi maanaam yonent bi naka la nit ñi war a am teggin ak moom ñoom du ñu nangu comme lii ñu ñu ñu def nii ñu naan yonent bi ñëpp na teg wala booy dégg sallallahu alayhi wa sallam da ngay dégg kenn sallallahu alayhi wa sallam suñu ne Muhammad da ngay dégg ñu ne sallallahu alayhi wa sallam waaw ñoom du ñu nangu lii ñu def nii ñun lu ñu def nii bu ñu ne Muhammad ñu ne sallallahu alayhi wa sallam loolu du teggin albaxiilu man zukkirtu indahu walam yusalli alayya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayuha allazina amanu sallu loolu fii lu amrin la de dañ leen di julli leen ci yonte bi alei salaam ngeen wekk alxuraan moo ko wax ngeen koy wekk ngeen koy dimbali yonent bi alayhi salaatu salaam ci weeru koor yéeg na ci minbar ñetti yoon mu ne amin amin amin bi ñu ko laajee benn ci amin yooyu dane jibril moo doon ñaanal alkande ki dégg ñu ne muhammad te waxul sallallahu alayhi wa sallam kon nañ bàyyi xel loolu kon dafa am teggin ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci wax ak jëf loolu bokk na ci ñu bañ a yëkkati jullit bi bañ a yëkkati kàddoom ci place bu yonent bi ne ci jamono dundam wala mu doon wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wekk ko wala mu koy wo mu koy sàllalu mu koy sàllalu tey misaal kenn ci ñun doon waxtaan ci yonent bi wala muy waxtaan ci waa kër yonent bi mu naan jabaru yonent bi loolu du wekk loolu du teggin ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon looy wax soxna yonent bi wala nga ne sunu yaay ndax loolu lañ loolu la loolu mooy teggin ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sooy wax lu jëm ci moom xatta sunu borom subhanahu wa taala da ngeen di jàng ñu ne yonent yëpp yàlla sàllalu na leen wala yaa nuux ñaata yoon la ci alxuraan yaa ibrahim yaa muusa yaa isa ñooñu ñëpp mais yaa muhammad amul ci alxuraan loolu mooy wan ne yàlla sax subhanahu wa taala dafa wegg yonent bi bu ko yàlla wegee nag kon ñun lu ndoor ah kon ñun ñoo ci war a raw kon alhamdulilah kon mbokk yi nee na loolu la ñu mayoon waxtu